salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan fii ci Lou'Bess TV mbégte ak contentement gu sax la am ci àndandoo bu rafet bi ngeen àndandoo ak ñun tey nag ñu ñëwaat ci seen émission jukki indil leen benn thème bu doy waar ah, muy nga xamante ni xew na fan yi lëmbee na dëkk bi trop muy musiba maaba kumba bu doy waar muy accident yi yaakaar nañ ni am nañ ci bilan bu doy waar diggante 2017 ba 2024 mais nag ma ànd ci ak sama ñaari ndaaraan ñu fas yéene ko waxtaanee fii ci euh, plateau Lou'Bess TV Ahmadou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Rari Sarr la jaajëfal bu baax macha allah tey indi nga thème boo xam ne ne mun naa ne ñu ni yëpp am nañ ci wàll tey yaakaar na rek buñ ci waxtaanee ba pare euh, dañ fi gis solution incha allah rabbi. jaajëf Ahmadou ma dalal euh, la belle Sonia ci loone Larisha ziar naa la namoon naa la namu waa plateau bi et tout namu waa équipe Lou'Bess TV surtout suñu téléspectateurs yi nga xamante ne saa su nekk ñoo ngi ñuy bàyyi xel ci Lou'Bess TV di leen nuyu di leen ziar di leen wax tamit ngeen baal ma baal naa leen yàlla na ñu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay déwén yu bari merci beaucoup. mais nga xaw a calme de nu mu demee noonu. non tey du dara nag. bi boo la xaw a jàpp yooyu. Mm. <laughs> kon nag eh, Ahmadou tey nag ñu fas yéene waxtaanee musiba Maba Coumba ba nga xamante ni sonal nañu trop trop macha allah di ñaan suñu borom aussi di jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen eh, bakken di leen masaw ñi nga xamante ni eh, am nañ ci ay gaañu gaañu tey nag ñu fas yéene waxtaanee mooy accident yi nga xamante ni lëmbee na dëkk bi trop Ahmadou lan moo waral tey accident yi. reewande du dara lu dul reewande ci Sénégal reewande ci chauffeur oto yi. boo xoolee catégorie oto yëpp ah surtout transport en commun bi tata yeeg aftu yi reewande bi chauffeur yi di dawalee reewande bi receveur yi nekkee c'est normal que chaque jour ñu nekk ci lii gis nañ barki démb ligne 32 bi daanu fale euh, rond-point EMG euh, man dama lay wax rek jeudi jeudi passé tey on est on est on est mercredi même pas une semaine 63 bi laa jël fii Kaas ba di dem Zac Mbao mais reewande bi chauffeur tata bi doon dawalee vitesse bi mu doon ci tali bi. buruxlu bi ñuy def di doublé nu mu leen neexee te da ngay ne xanaa ñi li fi jot am jëru leen euh, nekkul leçon ci ñoom chaque jour nga accident yoo xam ne da ngay tiit ndakaaru tali yi boo xam ne nit yi ñuy jéggi nu leen neexee mais nga bëgg jël tali bi rek yaakaar ne yow dong yaa ci ne du dara du lenn du rien lu lu reewande kese moo jàpp chauffeuru oto yi te dama yaakaar ne war nañ ci war nañ ci taxawaat mu am daan bu sévère seen kaw. parce que vraiment ça commence à mun naa ne ah, ils ont ils commencent à foutre la bordel un peu partout ici à Dakar boo tey boo demee ci région yi booy génn ci région yi chauffeur bus yi moom waxaalew ma leen déjà dañuy yeb oto bi ba mu fees dell ak ci kaw ba mu fees dell ba ñuy daw yaakaar ne non ci air bi lañ ne ku ci gis da ne kii dafa bëgg a naaw parce que dawalu réewande boo xam ne ne lu la neex la ñuy génnee comme pas possible. te chaque jour ñu wax ko chaque jour nit ñi wax nañu jooy nañu wax fu ne dugg nañ fa ñaxtu nañ mais taxul ba léegi amul solution te lépp suñu indiscipline donc moo ñu ko yóbbee. comme ni ko waxee ah, suñu indiscipline moo ñu mais tey Sonia yow lan nga gis ni tey mooy waral accident yu bari yi. bon mun naa ne waxoon nañ ko waxtaanee woon nañ ko rek ci ay jamono yu paase dañ ciy daal di ñëwaat parce que semaine bi ñu jot a génn rek gis nañ ni accident yi doy na waar tu daw daw ba ci kanam daal di daanu ci kaw pont xam nga ni lu doy waar la euh, ñàkk xam li ngay dawalee ñuy waxaat rek pour que ni ñi nga xamante ne ñooy chauffeur yi ñu xam ne ay nit lañ yeb nañ xam nu ñuy dawalee man dama yaakaar ni euh, code de la jànguñu ko dafa am ñoo xamante ne duñ jàng code de la route di la vérité. Mm-hmm. ñi nga xamante ne euh, receveur lañ yu góor ñoom dañuy nekk ci oto bi plus de deux ans ou trois ans. léegi euh, si booru la ñuy def oto bi maanaam chauffeur bi des fois du ñëw di leen jàngal mu ne leen demal dawal parce que day sonn mu ne ko demal dawal di ko jàngal di ko jàngal léegi ki nga xamante ne deful ko de la jàngu ko juste receveur la nga jox ko oto ne ko dawalal plus tard ñoom ngay gis léegi ñoom euh, chauffeur bi nga xamante ne moo am ay permis permis wu euh, receveur bi mu permi kooku lay utiliser donc pour wax ne la ñu bëri ñoo ngi dawal te xamuñu code de la xamuñu nan la ak naka la nit ñi ñoo ngi engagé di jox ay xale ay oto yoo xamante ne mosuñoo jàng code de la route jàng yi jàng kat pala yi ah jàng yii rek la ñuy def maanaam tey laa wala chauffeur laa mun naa dawal sama apprenti sax mun na ma dawalal ba ci njaga njaay ba ci super yi da nga gis njaga njaay bi mun a dawal muy jox xale bu ndaw muy dawal euh, accident bi amoon fi nga xamante ne moo di Petersen noonu la fa demee woon chauffeur bi moo ngi tëdd moo ngi tëdd ci grand place ba ñuy wax lu amul xorom lu ñàkk lu am xorom ak lu amul xorom xale bi lañ xale bi la wax demal tourner oto bi ñu dem bi mu demee ne demal tourner oto bi ñu dem muy apprenti bi te xale la buñ ne la kii mën na tourner oto bi danga naan déedéet yow mii di chauffeur bi yow mi nga xamante ne yow yaa yor bakkanu askan bi yow nga war a mën a xam nan nga mën a tourner sa oto ba yàpp client yi ñu dem mu tourner oto bi moom xale bi doon dawal gestuwul ci ginnaaw parce que xoolu sax seetu bi nga xamante ne moo koy accompagner mu xool ba xam ginnaaw am naa nit am na nit wala déet ci la tourner daa di daa di dal ci xale yi ñu fa ñu fa ñëpp a daw mais ki nga xamante ne robbam bi dafa lonk ci oto bi moom la moom la avancé ci kawam ñu ne rey nga nit mu tourner waat parce que xale la xamul ki moom oto bi moo ngi fële tëdd et pourtant ba mu amee après fan la mujjee borom oto bi lañ jàpp xale bi daw na donc pour wax leen ni xale yi wala apprenti wala receveur yi nekkul ni ñoom dañuy ñëw juste dangaa war a nekk receveur war a mën a dawal nekk apprenti wala mën a dawal du noonu parce que ay bakkanu jàmbur ngeen di yeb suba ba ngoon te di leen wax nag gis nga yoon bi nga xamante ne mooy route routière bi ñëpp chaque jour li muy génnee ci kopparu aadam ci kopparu Sénégal dafa bëri donc dañoo war a mën a euh, maanaam. jàppale askan bi parce que chaque jour nit a ngi génn di dem ailleurs di lijjante di dama ko ñëw donc waruñu nekk fi di rey nit ñi di leen defee ay lii wala laa non non non c'est trop nag c'est trop nañ xool naka la naka lañu war a mën a organiser suñu biir ba kenn ku nekk balaa ngaa yor oto ñu xool sa permis da ngay gis kuy dawal cag-cag sax du am permis leneen ak leneen moom ci dëkk bi donc on peut pas tout dire expliquer lépp donc pour juñu askan bi pour wax leen ne gis nga àdduna nekkul nii lañ koy demalee ku si nekk rek nu la neex ngay dawalee wala des fois sax hmm, nga yeb chauffeur bi chauffeur bi di dawee doucement doucement yow xamoo ki nga xamante ne dafa war a nekk en retard ci fi nga xamante mooy bërëb bu liggéeykaayam wala fi nga xamante ne mooy leneen ak leneen nu ko neex lay dawee nga gis client yi mu yeb naan ko da naa a réew nu leen neex ngeen di dawalee danga dul dawal sa oto bi nga gaaw mais di nga gaaw mais ci anam gu dal ci anam gi nga xamante gis nga yoon yoonu route bi ku ci deful nànk di nga lor sa bopp lor doomu aadama c'est cent en tout cas pour que ñu gën avancé avancer ma bàyyi nga euh, nga ñu développé waat ci leneen waay. Sonia waxee am na solo trop mais tey Ahmadou ñu gis ni aussi jëye ji heure bu amee tout le temps gis ne ay xale yu ndaw ñoo yor bus ba ci barki Demba Ndiaye accident bi nga xamante ni xew na Koungheul am nañ ci 14 morts te bu ñu tegee bilan bi aussi muy diggante deux mille 2017 ba 2024 3000 morts la ñu am ci dëkk ba nga xamante ni 17 euh, millions habitants la am bu yàgg bu yàggee est-ce que ñun tamit duñu jeex ci kaw tali bi. mais xam nga Larissa li may wax rek la mal est beaucoup plus profond ni ko Sonia waxee léegi transport en commun yi xam ne ne langkat la maanaam receveur wala wala apprenti xëy jël ñu jox oto mu cam langal di essayer ba mën dawal suba nga gis man yor naa sama oto nii noonu sama gaayan la mu ñëw ma jox oto bi mu ci foo di foo ba mën dawal dem na rek lay permis problème bi du ñu commencé ci ci dawal bi ci permis la ñuy commencé ñëpp xam nañu corruption bi am ci permis ici o Sénégal yaakaar naa ni euh, ministre tutelle bi euh, liggéeyam foofu la ko war a commencé stade amitié boo fa demee ñëw la nga joxe vingt moom vingt mille francs yi moom da nga koy bokk moom loolu moom yaakaar naa ne le président est courant ki gën a ndaw ci Sénégal est courant moom booy dem dañ leen ne yóbbu gànnaayoo sa vingt mille francs da gis benn Aliou boo xam ne ne. mu wóor na li kii dawala mokkagul mu ñëw liggéenti benn vingt millions teg ko ñu jox ko permis mu dem kooku yaakaar naa ne danger publique la ñi muy nar a rey moom day teg rek di dem euh, ñu gis xale boo xam ne ne amul benn responsabilité amul benn expérience dara xaaru ko man mooy dem voyage nii bus yi bu ma xoolee ngay xale du ma ci yéeg parce que man mag yi sax laa gën a considérer que am ñu benn responsabilité bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy wone parce que di nga ne bàyyi naa sama kër. mu nga fekk benn libaas bi nga xam ne kaana la léppam ci xel bi loo wax mu ne la kaana laa moom buy daw ci tali bi mu yaakaar ne mu ngi digg New York day naaw dalay reylu loolu yëpp ñun dañ ci ñu prêter attention man du ma du ma dem jamais boo maraîcher ba gis oto boo xam ne xale ko dawal ma ci yéeg jar na mu génn après xool oto yi yooru ma dem parce que yooyu laay éviter booy yu réew nga gis ko ci dawal sax ba mu yàgg taal cigarette am di tux nga xam ne kii amul sax éducation sax amu ko. mu tax il faut ñu régler ko ci ci permis yi ba pare ñu xool na ñuy livrer joxe permis ñu mën la tester testewaat la mais dañ lay jox permis bàyyi la nga dem. parce que gisoo ni aussi dañu war a xoolaat comportement yi nga xamante ni ñoom la ñuy jox permis tey da gis benn nino boo xam ne fii fumier lay takk ba du gis volant oto bi fu mu féetee am fitam daal di tegu ci kaw tali bi di dawal à ah, tout le temps dañuy def ay jéeréer. mais déjà ba ne vëpp mu wóor na li kii ba nga xool ci kanam bi nga xam ne kii tuuxkat nga ñëw day ut permis nga nga jox ko ñu lijjanti ko permis mu teg day xëy génn ne vëpp wala naan ba ne vëpp dugg ci tali bi ku mu romb da lay yenu mu tax ma ne nag man man permis de conduire senegal moom am naa ko de mais man sama amin ay ree la ma def certes nag jaar naa ci yoon bu légal bi parce que man bi ñu ma bëggee corrompre dama ne du xalaatuma fay vingt mille francs damay dem def auto école dem def sama sama sama sama code def test pare dem def stade amitié fii. boo yore sa téléphone sax di ko mel ni président dañ leen non dañuy yaakaar da leen di filmer ami stade Léopold Sédar Senghor bii parking fi ñuy defee code de la route corruption wu senegal fa la njëkkee te xam nañ ko nga gis benn booy fu bari mën naa ne quatre-vingt-quinze pour cent des booy sénégalais jaaruñu école kii auto école sa xarit moo mën dawal jàng na la dawal nga mën nga nga dem jaar fay taf taf jënd sa vignette dem nga gérer amul auto école jàngoo code. parce que tey da ngay ñëw si yenn stop nga gis nit ñëw rek farax jàll mu wóonal kii jàng ko man chaque jour ma ne nit ci mbedd man du ma ci war da nga dem bi yenn infraction morom ne la saa xanaa jaar auto école parce que boo jaar auto école lii doo ko def te jéy yi fi am yëpp moom la mu jël ci boole ci reewande alors c'est c'est comme ça Amadou waxee ñun aussi dañuy gis ni euh, jëye en général tata yi ñoo koy indi ak bus bi si nga xamante ni état moo ko moom est-ce que jotul aussi ñu def benn formation ba nga xamante ni dinañu former chauffeur yi xool seeni i comportement xool seen lépp comme ni ñu koy defee si entreprise yi duñu bàyyi dara nga xam ni mat nañu sëkk ñu doot leen a tekk ci kaw tali bi. Euh, dina mu ñëwaat foofu rek tuuti li Ahmadou wax ma soog a dugg sa question Ahmadou donc auto école c'est normal et puis ki jàng auto école par exemple sama bopp laay jël ma jàng auto école ñu ne ma booy def école sart yi la ak yi am na ñoo xam dañoo paresseux ba duñu xool livre bi ñu leen jox li nga xamante ne moom la auto école soxla am na ñoo xam dañuy génn ak seen permis ci auto école te mënuñu dawal yana ak gogo mu ngi ci dëkk bi bari na ñi nga xamante ne ñoo ngeeg seen permis te auto école lañ génn fay 150 000 te bu ñu génnee téye seen permis mënuñu dawal gis naa ko ak gogo bari na comprendre nga mënuñu dawal donc pour wax la auto école pour que mu garanti la euh, nga am fit en plus gis nga loo ristéwul mënoo koo mënoo koo tari loo jàngul ba mu mokk mënoo koo tari teg ko ci tali bi mënul nekk donc pour nga mën faaw nga jàng donc yow mënoo ñëw fay sa cinquante mille ku mel ni man nga paresseux iñaane ngaa ubbi kaye bi yow yow daal mooy ji na nga comprendre su demee def la pratique nga pratiquer ñu wéeru loolu lay 4 point 4 du nord nga ñëwaat. ñaari question lañ lay code bi sax ñaari code code lu mu bëri bëri 3 questions lañ léegi yow boo ci boo ci génnee ñu jox la sa permis jeex na yow doo def ay essayage maanaam ngay jéem di def ay essayage di dem di kii ñu lay jàngal parce que jàng du doy ba tey ba suba nit ñi da ngay ut xam-xam ñoo ngi koy sàkk fu nekk da ngay xam ma ñëw ci ci nga wax léegi léegi mooy que li nga xamante ne mooy. biche yi euh, ak tata yi nga xamante ne état bi moo leen moom dem dikk mus ngaa yéeg dem dikk. benn yoon gis nga dem dikk seen charte nu mu demee. Hmm, hmm. est-ce que mës nga gis ñu def faux pas ci ci route bi. ils sont tellement disciplinés macha allah dégg nga nga ko gis dem dikk maanaam état bi da ko du ko jël teg ko ci yoon xale yi ci nekk xale yi nga xamante dañoo am seen bac plus. xale yi nga xam dañoo lire chauffeur yi laay tàmbalee de boo waxuma ci chauffeur yi ñi nga xamante ne état bi moo leen jël ñu def seen formation ñu xool balaa ngaa def dem dikk balaa ngaa nekk receveur wala receveur euh, da ngay def formation après les formation ñu xool sa niveau parce que niveau bac la ñuy jël. dañoo yaru. yaru xam ni ñuy dawalee tey ñu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy minibus yi mooy dem tata yi tata yi tey jii am na lu état moom am na li nga xamante ne chauffeur ko moom. te chauffeur bi li mu moom dina jël ñaari apprenti dina jël ñaari ñaari euh, ñaari chauffeur dina jël li nga xamante ki ko moom dina jël ñaari chauffeur dina jël ñaari receveur euh, comprendre nga moom kun moom xoolul moom moom xoolul moom maanaam lii li oto bi lii oto bi war a def nan nan la war a dawale non non moom li muy xaar mooy chaque jour lu ñu ko war a encaisser lay xool. versement bi versement bi lay xool moom xoolul loolu. léegi nag yow boo jëlee benn xam nga ñan la ñuy jël mooy ñu nekk ci euh, ci super yi ci njaga njaay yi ñoom la ñuy jël ñoom ñoo ñoom ñoo moom li nga xamante ne mooy tataay tey tataay lu ci bëri mini tataay laa la wax de li ci bëri état bi moomu ko nit ki moo ko jënd ba pare jox ko nit ni ko dawalal ma utul ay chauffeur ay receveur am donc defe naa boo demee ba def loolu ñu garanti la ne la man de nekkoon naa ci super yeeg wala ci wala wala ci njaganjaay ñaata at ñaata at donc su ma la joxee sama oto est que di nga ma ko dawalal normal ñoom contrôlé wuñu loolu. donc loolu noonu waaw nañ encaissé seen xaalis par journée et tout. parce que man yàgg naa yéeg ci oto yi xam naa oto bi ci nekk nan ak nan la da ngay gis nit mu ne la ma nekkoon naa ci 43 bi bàyyi naa 43 léegi léegi ba may ñëw 43 bi ma jëloon. et pourtant dafa dem ba gis ay xaritam ci yoonu tali bi de taxaw te moo nga yeb ay nit. digg waxtaan ci digg tali bi. paa yeeg maire yi di saaga mu leen di tontu donc maanaam affaire bi commencé wul ci ki nga xamante ne moo ko ci ki nga xamante ne moo ko moom fa la commencé bokk na ci ñun nga xama ñun nga xamante ne pour mu wax la dëkk bi mënul baax xam nga la la. Mm-hmm. parce que da ngay ku mel ni man mënuma supporter mënuma muñ ni ma réewee noonu laay réewee ci sama lépp kooku dëkk bi dina mën a développer. parce que ma sàcc tuuti li nga xamante ne moom la nguur gi wax yàggul dara dëkk bi nekkul ñoom rek ñoo koy defar kenn ku si nekk rek war na mën a defar dëkk bi donc tey jii du ma du ma sama yére ni mu mel ci biir kër ga ma réew ba ñëpp di ko wax su ma génnee comportement boobu laay yor parce que li nekk ci man moo nekk ci ñëpp sama réewaande laay wane wan ko kii wan ko kii wan ko kii te Sénégal dafay nit koo xamante ne sénégalais boo ko wanee benn yoon reewaan daf naa la ëppoo ko dama la koy wan kon Séné Sénégal nekkuñu ci domaine boobu li li am solo mooy nañ yore teggin ak lépp li nga xamante ne rek nit ñi moom lañ bëgg ñu demaale ko ak nit ñi parce que tey jii ñun ay nit lañ te saa yu ñu xëyee rek nit ku nekk am na li nga war a ku ci nekk def nga sa planification suba lii laa war a def kon kooku suba mu war ko def accident bett ko ci yoon bi te lan la dogalu yàlla nag ndogalu yàlla la mais ñun bu ñu prudent wee xam naa ne incha allah clients yi dinañ prudent oto yi dinañ prudent su ko defee ku ci nekk mën a dem dikk tranquillement dara du xew franchement. comme ni ko Sonia waxee am na solo ba tey ci seen émission jukki mais Ahmadou da ngay gis tey benn koo xamante ni maanaam benn libaas la du am yar du am teggin tey def benn ñu ñëwaat ci euh, kii yi nga xamante ni jéeg bi nga xamante ni amoon na ci euh, rond point EMC. ku mel ni libaas rek xale bu ndaw daal di yor oto bi def ci musiba maaba kumba boo waxee ñun la ndogal yàlla la benn paa nee na aussi yàlla du dogal lu ñaaw seen reewande la ak seen ñàkk teggin. waaw dama ko dama ko dama ko doon suivre ma gis ñu ne déjà bi muy déparé euh, dawal reewande la dawal ba e man déjà client yi laa blâmé man ma fay sama ticket dugg ci oto bi nga bëgg ma sànq ci zéro bi mu dawee dawlu reewande boobu bi mu taxawee di ko waroon fekk mu nekk moom chauffeur bi ñuus ko fay oto bi parce que que les Sénégalais réagissent amatul ay balaa balaa parce que parfois tu te di ko mën la jeudi passé bi ma ko génne sama téléphone ko dama lay filmer ci la waa ji commencé dawal dawal lu nit ci tali bi te doon doublé comme ça ci tali bi tali jàmm gën nga xat yi nga xam ne ne for fu ne la béy ak ak nag di fële nga dawal dawal reewande boobu mais 32 bi ma ko gisee waa ji expliqué ne depuis bu mu départ da ko def je me suis dit nekk fa ay góor nga nekk fa muy def lii bu mu tax di jël benn client ngeen ko fekk foofu lem ko moom chauffeur bi wàccee ko takk ko ba mu teg ko fa fay oto bi. mais soo waxee dañoo yàqamteeg affaire yooyu gis nga aftu ak tata ñoo war a jël seen responsabilité ñi nekk ci kaw xam ne seen chauffeur oto yi dañoo réew dañuy dawalee lu leen neexee seen receveurs yi amuñu benn formation c'est à vous de prendre vos responsabilités face aux Sénégalais yéen war a xool li ngeen def parce que du question de business nañ encaissé ñu ñu fay seen ñu na nit ki versé rek non no no non chauffeur oto tata yeeg cimlong yeeg aftu yi dawalu réewande lañ dawal ci tali bi qu'on le dise ñoom li fi am yëpp ñoom la xoolal dem dikk ñu yaroo xool dem dikk ni ñu amee discipline xool ni ñu ni ñu jekkee sax ci ci nekk des chauffeurs mi fii ku la ci gën a réew chaque jour nga gis chauffeur tata buy dawal takk écouteur. Mm-hmm. billaah gis naa chauffeur tata buy dawal teg série di ko seetaan téléphone am teg ko di teg série di dawal. Mm-hmm. bëri na. ñi fa ñi fa nekk ne teg ñoom fi ñu yegg rek jëm. Mm-hmm. te fekk boobu moom yéen mu ngeen di sànq. réewande boobu la sénégalais yi war a régler seen bopp. ku ci jàpp takk la ba takk la fële xaar police ñëw léegi affaire yi réglé wu. a doy waar xàmmeetuñu code man ba ma juddoo ba tey gisuñu benn oto ba nga xamante ne respecté na code de la route. demal buntu Pikine buntu Pikine noonu boo jógee Dakar rek buntu Pikine boo paasee kii bi rek fii gars yi taxaw mais réewande bi ñuy gaaree foofu ñoom chauffeur Tata yi demal jàmm gën bi ñuy bi ñuy gaaree yow booy wàcc da ngay tiit parce que digg tali bi dañuy wàcc la taxaw wàccee client wala ñuy yëpp client oto yi taxaw ci ginnaaw di corner mais sax ñu gis ko mais ko wax ah non garaaw bàyyi Sénégal ñun maslaa ñu yàq te lii tànk réewande bi ak lii réglé wuñu ko non ci euh, euh, musiba ci jóge. baaba ay ay ay tali yu doy waar defal nañu ay tali yu doy waar teewul euh, maanaam dafa des ba tey li des mooy ci ñun la mbir mi nekkatul ci ci kii bi de ci ñun la. parce que comportement mooy lépp sa comportement moo lay yóbbu fu nekk ni nga mel moo lay yóbbu fu nekk donc bu ñu defee Euh, dal ak téye ak yar ak teggil gëm naa ne code de la bi dinañ ko respecté mais ku ci nekk rek da ngay jaay ni gënoo maa xam wala ñuy njëkkante tataay yi tataay dañuy njëkkante dañuy njëkkante doo ma njëkk a si fa la nekk te dañuy wootante xaw ma ba xam Ahmadou yaa ngi remarqué lool da ngay dégg ci oto ngay yéeg ci oto 40 59 wala kii 28 fa la toll mu wax la fi mu toll taf taf moo ngi njëkkante pour keneen ki bay parce que bu ñu dublantee ñoom ñaar ñu fekkante te ki ki nga xamante ne moo ko njëkk a génn ñu fekkante ki nga xamante ne moo avant la génn léegi bu ñu fekkantee dañuy alamaan maanaam dangay fay looloo tax ñuy ñuy ñuy njëkkantee ku ci nekk rek boo génnee balaa sa arrêt balaa keneen ki di génn 15 minutes d'écart la ñuy am ñoom ñoom tataay léegi euh, balaa nga sa morom ji la fekk si rek yow war nga dépassé foofu moom nga xamante moo ñëw yow war nga fekk yegg nga sa arrêt ba ngay xaaraat yépp c' est comme ça donc nag bu fekkee njëkkante boobu noonu nga bëgg a yeb ay bakkanu doomu aadama ba bëgg leen tayle ci mbedd mi defe naa jaru ko léegi nag lépp lu jëmul ci oto yeeg ci tata yi xam nga lépp lan la ci ñun la ça commence ci ñun suñ ko commencé ci ñun yar beeg teekil bi yaakaar naa oto yi dinañ normal Ahmadou wax léegi lu am solo mooy que da ngay da ngay dugg ci oto fekk leen ñu taq écouteur ak gogo kooku takkul écouteur de xam nga lan la defoon keroog dafa jël oto kii bi de def ko nii ci téléphone bi gis policier bi ñëw coupé wu mu ne ko policier bi ngi ñëw xaaral teg teg téléphone bi bàyyi ba bàyyi ba mu passé policier bi rek mu jëlaat téléphone bi xoolal. waaw client di ko seetaan loxo bi de benn loxo la doon dawalee. man cigarette benn loxo la doon dawalee naan nii xoolal téewaat kii bi di wax teg pour ma wax la xam nga ka la doon waxal. gelam la doon waxal góor la gelam la doon waxal. fii kañ nga may góor na yaa parce que man maa ngi taxaw moom dama taxawoon dama tey kii bi. li muy waxee kay man dama koy dëgg. ma taxaw ci oto bi nii ci devant bi nii muy wax ak gelam. mu ne ko bee xaaral xoolal oto kii bi moo ngi ñëw policier bi rek def ni téléphone bi waxuma parce que pour wan ni la yaa a des yoo xamante ne tant que duggoo ci oto yi munoo koo xam man dama yaakaar ni doon des fois nga jàng ba dof nag di def yëfi dof. dafa am rek xam nga bu ñu la yaru sa kër boo génn lu nekk lay def non déedéet xam nga tey jii bu ne nit jàng na rek dafa war a muus ñi jàng gën a dof ñëpp man de man loolu laa gis quoi. parce que ñoom jàng nañ xam nañ li ci jàng xam nañ li ci code de la après nga ñëw di def yenn bitis yi nga xamante ne xale bu ndaw bu ko defee ñu dóor ko kooku ab lal la kooku mala sax moo ko gën. weer xamuñu farouche. en tout cas. Mm-hmm. kon Ahmadou yaakaar naa li ngeen fi euh, wax am na solo trop yan solution nga gis ni état bi bu ko tegoon jéye yooyu musiba maaba kumba bi dina wàññeeku parce que mënul ñàkk ay doomi aadama lañ suñu borom tamit eh, lu mu bind rek dafay am yan solution nga gis ni buñ ko tegoon dina fi wàññeeku. voilà bu ma gis pour lii déjà boo xoolee nañu fexe takk der yi aussi ci kaw tali bi. Mm-hmm. ñuy ñuy alamaan chauffeur yi chauffeur bu defee yenn yi jarul ñu koy bindal nañ nangu sa permis une bonne fois pour léegi amatul ay seconde chance chauffeur bu defee fu reewande rek nañ nangu sa permis ñu interdire la dawal pendant dix boo génnee interurbain bi génn ci ici à Dakar bu ñu jàppee oto bu yeb yenn yenn yeb yi dañu wàcce chauffeur bi wàcce client yi xaar beneen bis ñu dugal leen man jël naa oto di dem Kaolack chauffeur bi daw leen ni ko neex di doublé dama yegg ba ci policier bi man en tant que wàcc ne ko saa waay chef nuyu naa la ñun def fi ñu jëm amul ndox ndax waaj ni muy dawalee dawal réewante la waaye ñëw ñu fa nekk ci ubbi bi bis bi ñu naan non non da ñuy tardel ma ne suñu bakkan la sàmm deuxième solution bi waxoon naa ko sànq na Sénégalais jël seen responsabilité tey nga taxaw di wax téléphone man waaj dama taxaw yéeg taxaw ci kanam gis ko mu ngi dawal ak loxo euh, droite bi di tux ak loxo gauche bi man a ko saa waay tu ne respecte un peu sa cigarette bi fay ko chauffeur bi dawal yow yaa ngi tiim fi nga tiim yëpp dara bu fiy tàkk kii ñëpp ni dañuy dee ngay dawal di tux nit takk écouteur chauffeur takk écouteur di dawal mën na ko saa waay euh, bu bu bu receveur bi demandé arrêt mu dépassé ko. mën na ko gars yi nag mën na ko yow mënoo dégg parce que takk écouteur da dindi écouteur yi. il est temps am na seen bopp fulak safari gis chauffeur bu ko def nañ la lem bu jar lem sa loos bi ba mu tourné ñu génneel oto bi teg la ci biti. Ahmadou bu ko defee benn chauffeur benn ñaar ba ñett wallaahi mu jeex. Ahmadou est que chauffeur na droit di dawal ba ci digg bi. romb borom café ne ko jaay ma café te nga yeb ay nit. ay yeb ay nit yi fu réew dëgg la def. amul droit def loolu. amul droit fu mu a defee continuer ci dëgg tal nga taxaw di yeb café man d'accord nga ñëw ba ci arrêt nga droité taxaw bëgg nga am koo ci gis mu naan café daa gémmantu boo gémmantu nag nga wàcc oto bi jox ñeneen dañ lay sànkulu ji il est temps que sénégalais jël Sénégal lépp état nu ko def de lépp état mënu ko gérer nañ sénégalais jël sa responsabilité ku ko fi def nañ la filme jël sa kanam ko daj ci réseaux sociaux yi waa aftu ak direction bi xam ne ni chauffeur bii tel ba ba su doon wàcce ngeen firmer plaque bi ngay xam ne oto bii chauffeur bi nii lay dawalee ñu éliminer ko teg ko de côté bu ko defee léegi gars yi rek la c'est aussi simple. Modou kon nag soo ñaayeen solution nga gis ni tey état bi bu ko tegoon na musiba maabu kumba bi dina wàññeeku ci suñu réew. Euh, euh, li ñuy wax ci saafara bi rek lu am solo la parce que solution lan mooy saafara bi mim réew. sa commence si ñun ba pare parce que mun naa ni bu ñu amul yar ak teggil mënuñoo respecter doomu aadama kon chaque jour ci tuuxi duuna la ñuy nekk donc bu fekkee am nga yar ak teggil yaakaar naa nga respecter doomu aadama gëm naa ni doo nekk ci tuuxi duuna te dinañ nekk ci jàmm bakkan yi ngay rob suba ba ngoon defe naa dootul am pour que état bi tamit mun a changer tuuti maanaam xëy na sax day soog a toog gëm naa ni du mun a euh, accomplir lépp nànk-nànk la ba ba mu jot affaire yi donc exemple bi mooy que ñun suñu bopp ñun nga xamante ne ñooy yéeg ñooy dem dem ak ñëw doo gis benn recherche bu dugg ci ay tata doo gis ki nga xamante ne dafa am xaalis muy dugg ci ay tata wala ci ay njagajaay wala ci ay super ñun ñooy dugg ci njagajaay ñun ñooy dugg ci tata ñun ñooy dugg ci super yi donc ñun ñi nga xamante ñoo siy dugg nañ xam bu baax chauffeur bi bu dawalee nañ ko xam bu bu la leeree ni dawalu baax ba tontonteeg moom am histoire wàccal naa ko oto bi wàccal nga jël beneen oto. parce que jàmm la day dem rey keneen. di mais xam nga la nañ leen xam nga la la des fois ah, yow mi di jigéen nga wax ñu xëpp la ko. histoire ne cur dóorante xeexante nga filmé lépp xam ne kii moo ko xam nga lan la Sénégal tegewutuñu ci ay ay ay ay ay xiiroo ŋaayoo dafa doy nañ gas loolu yépp suul dawal na gisoo jàmm wàccal nànk li ngay li ngay gis ni gëm nga ni bu demee ba fee mooy loolu wàccal nànk ci oto bi yéegaat beneen oto parce que ñu yow sa bopp ngay sànk bu la leene ni chauffeur bi boo waxee mu andi coow wàccal nànk saafara bi mooy ñu joxe exemple boo demee boo demee France et pourtant ñoom boo dawalee euh, distance bu gudd nga yokk vitesse dangay gaaree sa oto dugg sa biir kër ñu sone andil la amaan parce que li nga dawal dafa ëpp charte yooyu dañ ko war a amal mim réew mii Sénégal su ko defee ku ci nekk rek yow bu la leeree ni sa salaire balaa nga koo jot di nga am loo ci coupé rek su ko defee règlement yi day normal parce que ñoom xam nañ ko de la route que mës ngaa toog ñu ne la France am na yoon bu def bu def soog c'est très rare Sénégal nag mënoo génn ci semaine bi rek. ñu ne la soog amul c'est impossible. c'est impossible. chaque semaine chaque semaine dinañ ne la am na choc bu am fii bu dul tata bu dul bu dul bu dul tata di nekk cag-cag bu dul cag-cag di nekk leneen ak leneen wala super wala njaga njaay dafa amul sens njaga boo ci tiit boo ci duggee da ngay tiit bu demee ba autorité apayage nii la koy def faj faj faj di naaw te ot xottu kese la. wallahi azim xaw ma ba xam mës ngeen see yéeg kolobaan euh, mairie kolobaan ak yooyu noonu njaga njaay yooyu dañuy naaw xottu dong la xottu la lu ngay def dañuy yokk yàlla bu amul du am apayage du du am kii am kii embouteillage nu leen neex la ñuy def donc nañ xam nit ñi nga xamante ne ñooy dawal ñuy chauffeur yi ñi moom seen oto yi personnel yi ñi nga xam ñoo moom seen oto yi nañ xool ñu ñuy jox seen oto nañ xool ni bu baax nu ñuy jox seen oto état moo ngi def liggéeyam munul accomplir lépp léegi accomplir bi say day commencé ñun ñi nga xamante ne ñoo moom suñuy alal di ut ay jigéen wala ay nit di ñu liggéeyal nañ xool nan la ak naka la su ko defee rek jàmm am mooy que tamit yar beeg bi yar beeg teggil en tant que moo ngi Sénégal ñun duñu ñun ñun ñun ñun ñun duñ dinañ dinañ baas chaque jour chaque jour danañ baas parce que yar teggil moo fi amul. man de jàpp naa ni moom ah, man jàpp naa ni ma ah, jàpp naa ni moom tataay yi moom tataay tataay yaakaar naa moom sa CV booy déposé pour nekk receveur dañ lay dañ lay laaj sa degré de réewande fu mu toll man moom tataay moom dama yaakaar loolu dafa bokk seen CV indiscipline nañ mën nañ tontu mag moo tax su ma si duggee sama écouteur laay dàq euh, junni tikkee ne ne noonu réewande man dama jàpp ne tataa moom jël Sénégal na si bu ñu leen di éliminer Sénégal ñu éliminer leen car moom dama leen dam leen bërëm xam ñoom nañ jël rek daf ko carcasse rek dem taal ko ruyal seen seen kii vraiment vous êtes yéen ngi son sénégalais quoi ku leen rey Euh, loolu daal lañ la indiloon vraiment di di jaajëfal ñëpp solution rek lañ bëgg parce que euh, heure booy dugg ci oto yi rek sa sa sa xel du dal sa fit du du toog parce que réewante gi ci am rek beneen affaire la di jaajëfal ñëpp te ku nekk tam jël ay responsabilités Sénégal suñu Sénégal la ñoo ko moom na ku nekk jël matukaayam ñu xam ne ni. Mhm. non benn instant dafa jot ñu ñu ñu gérer suñu bopp. parce que bu ñu ko deful tey ñun ñoo ci ñun ñoo ci jooy sànq bi ngi ne boo gisee chauffeur bi daw la daw nga wàcc man dama dama dugg oto di dem màggal waa ji bi muy vitesse di ñu romb nu mu doon dawalee ma ne copain bi mu kii kii de bu ma dajeeg policier naa ko dénoncé pour ñu arrêté ko mais comme daf ñoo euh, rawoon distance bu bari da jëkk romb ko rek gis ko mu mu mu mu mbëkk beneen oto mu nekk lu ñaaw ne xoolal li ma doon wax mbëkk na lor na boppam loraale ñoo xam ne bokk ñoon ci ci ci reewandem bi mhm. yàlla nañu yàlla sàmm te yokk ñu sutura bu baax a baax amiin yaa mu bàyyi la nga tëj Sonia mhm. euh, suñu dernier moom franchement lu mooy saafara bi yar ak teggil bi nañ koy nañ koy def ci yoon yi ni ngay ni ngay respecté sa papa ma sa yaay respecté ko ñi nga xamante ne ñoom nga yàpp te te ay doomu aadama nga yeb yaboo ay këyit yaboo ay eh, kii ay doomu aadama nga yeb te gëm ngeen transport li muy joxe mim réew li mu koy apporter dafa bari donc ñu gën a wane yar teggil bi ñi nga xamante ne ñoo moom seen oto yi et puis ñoom tamit eh, ñu gën a eh, prudent ci ñu ñuy jël ñu xool leen gëstu leen ñu bàyyi Euh, par paresseux parce que boo paresseux gëm naa ni loo jàngul mu mënoo koo tari maanaam boo tayalee euh, doo mën dara dangay tayal tout le temps euh, di remercier ñi ma bokkal plateau bi Ahmadou le Richard di jaajëfal ñëpp suñu mbokk internautes yi di leen wax bu leen tax de seen kay feeñ ak Sonia samedi prochain incha allah ñu démarré ko juste dafa amoon lu ñu kale woon rek mais kay feeñ ak Sonia samedi prochain incha allah ñu daat koy tàmbali c'est ça ci Lou'Bess TV merci beaucoup. Merci Sonia Ahmadou li la ñu indiloon ci jëye yi nga xamante ni xewoon na fi fan yi comme niñ koy waxee rek état na si jël ay mesures te bu ko si jëlee aussi na ko suivi parce que trois mois lañ koy def daal di fàtte gars yi nekk ci lu leen neex comme niñ ko paa bi doon waxee ku yarawul doo euh, yor dara ku amul teggin aussi doo tegg dara kon nañu am yar ak teggin di jaajëfal sama équipe technique noo Libaas Azé Momo ak cabaw maa ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez ci yeneen jukki jërë ngeen jëf.